mbokk yi asalaamaaleykum dellu si waat nañu suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi tey nag ñu toog ak kenn koo xam ne kii moo di Boubacar balde jaaroon na fi sax ci jamono yële xawoon na fi gëj lool waaye nag bokk ci parti bi nga xamee ne moo di parti socialiste nekk ci ñi nga xamee ne ñoo di lëkkalee lu bare bari ci parti bi bokk ci cadre mën naa koo duppe noonu bokkit ci beneen mbootaay boo xam ne bii mu ngi tudd IRA nekk ci biir parti socialiste Boubacar Baldé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu sëñ Maodo. di la di la di la di la remercier. ci mhm. invitation bi et di féliciter tout le personnel de de Sud FM. voilà mhm. Boubacar IRA c'est quoi. IRA mooy lan. IRA bi ngeen def ci biir partie socialiste mooy lan ak lan mooy objectif bi. waaw IRA d'abord mooy signification bi mooy c'est une initiative. Mhm. de réflexion et d'action socialiste. Mm initiative boobu nag euh, euh, benn kuréel de de cadre. de cadre euh, ñu toog saytu. Mmh. vraiment ci difficulté bu nga xamante ne parti bi toog na presque deux ans. Mmh. convoqué wul euh, instance yi. alors ñu xam na ne vraiment que euh, militant ñu ngi si ñu ngi ci doon ñaxtu bu baax di ñu di ñu di ñu ko wax si lañ toog réfléchir ñu demee je pense que il est temps que ñu jóg alerter direction du parti bi et un peu secouer leen. pour ñu xam ne ne quand même euh, la vie d'un parti politique c'est l'animation des instances des instances di sommet à la base donc si le IRAS juddu yàlla dina bu mu juddu nag eh, ñu def ay activités yu bëri bëri bëri bëri bëri waaw. waaw ah, mais mais ça ça est-ce que est-ce que a impacté parce que jusque là li fi nekkoon rek moo fi nekk ba léegi. Mm-hmm. parti socialiste et dans Benno. Mm-hmm. bon am na fi ay coppeeku fi am yu bare bëri ci gouvernement bu président Macky Sall mais toujours il n'y a que trois personnes yoo xam ne ñoom la ñuy dégg ci parti bi depuis que ngeen dugg 2012 ba léegi Aminata Mbengue Ndiaye Serigne Mbaye Thiam ak ministre Ndoye bon c'est mm-hmm. fini ah. parce que ça c'est un grand parti mais ça pose un problème de renouvellement am nañu ay romandaat ci suuf wilaan nee na tout tout va bien nee na il faut ñu dajalewaat nit ñi waxtaan ak ñoom jàmm rek am su ko defee li war a am am Abdoulaye Wilane pour lui c'est c'est un rassembleur en tout cas mhm. su fekkee dégg nañu ay kàddoom mhm. xaw ma ce que yéen noonu ngeen gisee wala déet oui xam nga d'abord euh, euh, xam nga parti politique boo ci nekkee mhm. da ngay fexe ba am information de base formation base bi. oui moo lay mooy tax nga nekk un militant un vrai militant du parti pas un opportuniste mais boo ñëw ci parti amoo benn formation de base jaaroo école du parti jaaroo les instances yi nga xamante ne moom nga war a jël pour am pour faire les les escaliers. am l' expérience et l' expertise politique. lu bari lu ñëw da yaakaar yaa ko moom. ñun dañu am chance ñu def lu ñuy wax pionnier. nekk élève socialiste man je prends mon cas nekkoon secrétaire général des élèves socialistes a Kolda à l'époque mhm. jóge Kolda dem Ziguinchor à Djignabo aussi nekk fa secrétaire général aussi des élèves socialistes mhm. à l'époque nekkan on grand meneur de de grève en en relation avec les Malamine Diatta et les les les les Baba les Baba Ndiaye donc euh, les Moussa Taye voilà à mhm. bu yàlla def mu jógee foofu ñëw Ndakaaru jàng si ñu falaat ma le responsable régional et communal des jeunes du parti socialiste de Kolda nekk de droit membre du comité central. Mhm. xam nga ba léegi ma lay wax formation bi. Mhm. ñëw université nekk dans le MES ànd ak ku ñuy wax suñu xarit Mor Faye ñoo ñu nekkoon institut ñoom ñu nekkoon UCAD alors ñu ma nekkoon aussi chargé à l'organisation donc format lu tax ma lay wax sama jaar-jaar. Mhm. dafa parce que dafa am solo ñu bëri samay moroom ku mel ni ñoom Mor Faye ku mel ni ñoom Latir Ba ak ñeneen donc jaar-jaar boobu moo tax ñu am formation politique tey ba yàlla def ñu nekk adulte nekk adulte fekkee Ousmane Tanor Dieng dans l'opposition en mille yàlla def ñu ànd ak moom avec conviction ñu ànd ak moom avec désintéressement ñu ànd ak moom avec beaucoup de volonté et de courage dans l'opposition pure et dure amuñu benn yaakaar bu dul yàlla. ak suñu jàng bien sûr parce que boobu ñu ngi doon jàng aussi donc ñu nekk te doon intégré ñu dans le bureau politique parce que gis nañu suñu suñu pas-pas suñu suñu suñu dëgër lay suñu suñu conviction ci moom parce que xam na ne opposition la nekkoon te xam na ne bu ñëwee nekkal ci wetam du intérêt moo ñu tax ñëw xamoon na loolu et jamono boobu tu pouvais compter les jeunes qui étaient avec Ousmane Tanor jee tu pouvais le compter y avait que man rek ak Mor ku ñuy wax Mor Faye des jeunes actifs hein nous on n'était que deux la preuve mille 2004 la première sortie de Tanor Dieng c'était à Kolda dañu tama dem këram ñu añ mu invité ñu añ man ak Mor Faye ñoo toogoon ñu añ ba pare man wooy mais Sarko il faut que tu tu tu, pré, tu me euh, une sortie à Kolda hein. il faut que je je visite ma ma seconde raison parce que nee na mooy après à part à part après la raison de Thiès Nguéniène c'est Kolda parce que fa la fa la defee ses ses stages quand il est sorti de l'ENAM en tant que cadre. Mhm. il a fait que six mois de stage à Kolda donc vraiment et eh, ce intéressant pour lui que mu mu ñëw Kolda et puis remobiliser encore les troupes ramener les gens ce qui parti yàlla dama organiser ko mu confirme organisation bi et j'étais encore plus jeune que ça et vraiment ma ne ko nag comme yaa ngi dem Kolda il faut ñu jaar euh, Vélingara yàlla def ma aussi ma rassembler tous les cadres de la de Vélingara les chefs de bande et autres Il y avait à l'époque, il y avait tous les Aïssa Talsa, les Khalifa. Boubou, le parti était attractif, était vivant. Les Aïssa Talsa, les Khalifa Sall, tout le monde. Donc, nous sommes partis à Kolda, à, Kolda, à Vélingara d'abord, après Kolda. Donc, il y a le def, ma jiton lolo, ma organisation tamet, à l'époque. Bon, c'est vrai, on a trouvé après un na que notre vision socialiste portait, parce que vision socialiste venait juste de naître, n'a porté, tourné, tanorabi. Parce que Boubou, qu'on aurait porté, mandrek, alors que je les instances adultes. responsable régional jeune jeune là dina xaw a poser problème les adultes. Mm comme ça que Vision a porté cette euh, cette tournée de Tanor en 2004 à Kolda. donc euh, et yàlla def j'étais le principal organisateur aussi Tanor yàlla def mu ràññee ma fa gis ma fa vraiment mu mu mu mu mu mu mu mu duggal ma ci xolam mu duggal ma dans sax famille maanaam. lu ma neex c'est-à-dire man amoon heure chez Tanor amoon intermédiaire chez Tanor heure bu ma neex laa doon dugg et en plus euh, dès damay dugg sax dugg ba ci waañ bi xam nga jël sama café nag donc j'avais ces relations de père en fils moo nekkoon sama diggante moom ok loolu lépp xam nañ ko xam nañ ne loolu xam nañ ko mais parti socialiste fi ñu toll nii le problème moom le parti d'or parce que doo dégg seen ay jëf oui oui xam nga man en tant que non maa ngi ñëwaat si sa question da nga ne oui lu tax depuis 2012 ba léegi waaw c'est Serigne Mbaye c'est Aminta mhm. c'est Aliou non Alioune Ndoye il est récent moo tax d'ailleurs il a il a il y a <laughs> envers lui parce que c'est récent il vient d'arriver xam nga moo tax man la formation jaar-jaar dafa am ci politique mhm. c'est important kii di Serigne bay malheureusement il n'a pas eu l'occasion de faire c'est-à-dire que de faire cette carrière politique. ah bon jaar jaar jaar bi. ah bon Serigne Mbaye Thiam non non non deful jeunesse socialiste. Serigne non non non deful mes. c'est-à-dire que c'est pas un un un militant d'instance de base defu ko c'est un cadre. Et à l'époque Tanor aimait beaucoup les gens qui réfléchissaient c'est un cadre c'est un intellectuel qui était très intelligent qui aimait le parti qui aimait Tanor nii la ko Tanor coopté indi ko n'est-ce pas donc Aliou Ndoye aussi c'est la même chose c'est pourquoi d'ailleurs ils ont pratiquement le même caractère Alioune Ndoye aussi cest à amul trajectoire boobu sax amul jaar-jaar boobu. jaaru daan c'est que les les amuñu jaar jaaru jaar ci instance yi parti bi dem ci école parti bi ñu jàngaleen. voilà mais laay cëpp lu ñu ñëw rek la bërëx ci biir. bërëx ci biir yàlla def nag ñu ànd ak seen wërsëg. voilà contrairement à Aminta. xam nga moo tax man sax lu ma mën a tolérer. mais Aminta Ndiaye elle connaît très moo tax man la contrairement à Aminta. Aminta dafa am jaar jaar. dafa am vécu. loolu muy depuis étant pionnier Ameth xamul lu nuy parti socialiste. non moom kay foofu la foofu loo ko yar sax. man xam naa ko bu baax. donc si la ju parti bi si la parti bi la si la màggee parti bi la xam. donc ñële xëy na mun nañ commettre des erreurs politiques mais pas Ameth Ameth n'a pas droit parce que a un vécu. elle a une expérience elle a expertise maanaam lu lu ma la wax nii fu ma jaar. Aminta fa la jaar. étant jeune fii étant adulte étant responsable des femmes donc si la jaar ba toll fu mu toll nii. oui mhm. donc alors c'est pourquoi je di que Aminta bu du woon xëy na lu tollool nii lii nii par exemple lu ko bette nii il pouvait vraiment gérer le parti mais malheureusement xam nga dëj moom day bettaate ah, elle s'est pas préparée à ça et ça c'est un et puis de deux mu nekk jigéen de trois il n'a pas eu le temps maanaam elle n'a pas eu le temps maanaam euh, de fédérer de fédérer xam nit ñi duggante ak nit ñi elle était dans le mouvement des femmes qu'elle gérait donc li jëf-jëf yëpp tax na tey elle a des difficultés pour gérer le parti elle a des difficultés pour gérer le fonctionnement du parti elle a des difficultés pour gérer les hommes les responsables du parti à la base. mais ça peut avoir des conséquences. mais bien sûr ça a des conséquences. mooy toolu ma la c'est-à-dire que loo préparé bett la. Mhm. préparé ko xamu ko woon ku ko ko deewoon sax du ko gëm voilà donc eh, c'est, c'est normal ba pare nekk jigéen en plus nee naa elle n'était pas dans les instances. c'est-à-dire Aminta elle gérait un mouvement donc c'était difficile pour elle maintenant euh, ñun lu ñu koy dul ñaan lu ñu koy lu ñu koy ñaan nee naa la euh, wax naa ko fii Aminta sama sama c'est plus qu'un moment pour moi parce que mosul def sortie maanaam dans le cadre de ces de ces missions euh, étatiques dem ko laata eggul sama kër la dernière fois c'était à minuit minuit moom moo mun a maa ngi maa ngi maa ngi seen salon foo nekk à Kolda donc on a des rapports très particuliers son dernier voyage avant muy dem euh, France seetaat seetaat yaramam yaakaar naa man la mujj gis si lu ma yaakaar. d'accord loolu yàggul. mais mais dafa il paraît que mu convoqué woon na benn ndaje fan yi ñu génn ah yàggul dara eh, une dizaine de jours lan ngeen fa doon wax. oui xam nga en fait euh, xam nga man diversion ndax may énervé ci politique. ñun IRAS c'est une initiative de cadres mm-hmm. des cadres politiques et des cadres académiques ñoo bokk créer lu ñu wax IRAS. parce que vous êtes frustré c'est ça c'est simple. c'est loolu laa la. il faut le dire on a frustré wu wax la. on est frustré ah, xam nga sa frustré. mais da ne lii moo ñu metti ci parti bi amul réunion. y a loolu laa wax cest lu ñu metti ci parti bi xam nga wax naa la ko léegi nii. dañuy toog pendant plus de deux ans y a pas eu de réunion d'instance amul ku war a convoqué bu dul la secrétaire générale du parti convoqué wul ñu def lu ñuy def def suñu conférence de presse def nos sorties nous avons été très réceptifs par le parti a été très réceptif si diggante boobu la ñu convoqué seen suñu bureau politique ñu ne waxtaan ñu xamal nañu ne on nous avons raison ñu ñu ne la ñun yemuñu ci ci ci ci euh, ci des déclarations nous avons écrit un mémorandum saytu tous les difficultés du parti def ay perspectives wax leen ne expliquer leen lu parti bi war a def ba nekkaat dans le kër des dans le kër des Sénégalais le parti socialiste a disparu. ah bon oui oui. le Alors, parti socialiste a disparu. loolu n'existe plus mon cher. ah l'institution qui est en tant que parti mais le parti politique en tant que politique non non non ça n'existe plus. ah bon le PS n'existe plus. non sëñ xam nga loolu yaa ma gën a xam xam nga. am na question mu nga posé avant ma fi ñëw laa dama ma lay may yëg soow c'était en euh, fait ñun maanaam loolu moo nekkoon difficulté boobu. waaw ba ngeen créé seen IRAS bi et tout. voilà si la IRAS judd nag léegi réunion voilà réunion séminaire bi nga doon wax. waaw fan yi très bien c'est un séminaire que nous IRAS on a proposé. ay ah, ko proposé ñu ko ko proposé ñun ñun IRAS ñoo proposé. la rencontre en aller à un séminaire à des conclaves qui vont aboutir à un congrès extraordinaire et à la candidature du parti en 2024 ñu ngi si mémorandum bi pourtant envoyé naa la ko woon la première émission après la alors bu ñu proposé loolu nag ñu ne ok vraiment présenté ngeen document bu pertinent lii kenn mun amu ci lu mu ciy wax on va en faire une base de travail ñu dem pendant presque six mois sept mois njëkki-njëkki ñu ne bon voilà le parti a décidé finalement de fair le séminaire alors ñun la ok mais c'est ce que nous avons souhaité c'est ce que nous voulons mm-hmm. alors bu ñëwee nag ñu jël suñu terme de référence yi ñun IRAS mm-hmm. ñu jël ko plagier ko daal euh, def ci lu leen neex jël lu leen neex leen ne ñu jël ko sandi ko leen ñu léegi ñu jël travaux yi bu ko confier benn nit alors que ñun ñoo def réflexion de fond bi ñun demoon foofu si réunion préparatoire boobu bu ñu demee ci réunion bi ma ne leen mais yéen lu ñu ce qui a été entendu en BP du loolu ngeen indi fi ce qui a été entendu en BP keroog nous avons ils ont demandé solennellement à la secrétaire générale que le coordonnateur de IRA fasse la déclaration j'ai fait une déclaration dans une instance régulière qui est le parce que te dis hein a pas une instance supérieure au BP toutes les autres instances c'est des instances intermédiaires mm-hmm. ay secrétaires nga gis nii c'est pour un Euh, faire le petit malin là dans leur coin là mais ça n'a pas de sens un secrétaire exécutif. amul sens ça ne fonctionne tout pas tout simplement. Oui. Macky euh, avait un secrétaire exécutif l'APR ils feront ils ont tout fait pour créer un secrétaire exécutif dans le parti socialiste. xam mu ñu je reviens bu ñu na nag ba ci biir Mar Diouf tu t'imagines Mar Diouf qui était chef de cabinet de Senghor qui présidait la réunion Mar Diouf qui était chef de cabinet de Senghor. ah, qui est jusqu'à présent présent de la commission d'organisation du Parti socialiste. moom mag la léegi ah. mais waxutuma ay mag la mais xamatul sax lu xew. waaw mais du mais du ngeen jëm a renouveler du ngeen jëm a. pas renouveler mais rénover ou. loolu c'est-à-dire que nga ils sont dans la diversion. c'est terrible hein. ils sont dans la diversion en réalité. ñu léegi bu fekkee ne bëggoon nañ jàmm ñun lu ñu proposé. comment un ancien directeur de Senghor peut diriger des réunions. c'est extraordinaire. Ah, ba ancien chef de cabinet de Senghor. ancien chef de cabinet président Léopold Sédar Senghor. ci parti socialiste ba léegi muy ngeen di nangu en tant que jeune. en tant que adulte bu jël non mais quand moo nekk président de la commission d' nationale du parti. alors que y' a des jeunes qui sont là dynamique y' a des cadres y' a des femmes c' est extraordinaire. monsieur yéen yéen yéen yéen yéen parti social bi daa feebar ah. parti bi amul perspective. alors bu demee ci loolu si rajo bi je reviens. ñun leen mënul warul nekk noonu parce que man en tant que man la c'est pas ce qui a été entendu ce qui a entendu est dû par la secrétaire générale du parti socialiste. Oui. comme ñun IRAS ñun ñoo produit document bi. Mhm. ñoo def proposition yooyu donc ñun nañu porte séminaire bi ànd ak ku ñu wax kar yi Meng ak bay ñu ñu ñu ñu ñu. Alpha Bayla Gueye Alpha Bayla lui il est, dans le parti mais. dans le parti ñu nekk a trois. mais lui il est très posé ñu liggéey ci. ñu indi une proposition globale mais pardon du grand bi dañu yegg telle personne a fait déjà des propositions. Et on nous parle de document de X, document de Y. Alors qu'il y a déjà un document de base qui était Donc si la frustration ñun ñu rëccee ndànk ñun lañu des ñun lu ñu décidé ñun parti bi na def seen séminaire ñun dañu organiser notre seminaire à la dat date boobaa dañuy xam nag militants yi ñan la ñu wuy si je vous assure que le parti n'aura même pas la moitié. mais mais mais mais. et tous les responsables répondront à l'appel de IRAS maa l Boubacar Baldé ma nekk ci cadre bokk ci parti socialiste xam nañ sa ay jaar-jaar ci parti bi am nga ci vécu politique et tout ça nekkoon nga xarit Ousmane moom mooy benn bokk yaakaar bi bu ngeen sax woon parti socialiste génn ci biti bu ngeen ko waxee bu yi loolu leen leen di joxaña de xam nga nee na yéen da ngeen bëgg parce que ni ngeen parti bi day nelaw yow sax wax nga ko ne amatu leen parti euh, mais alors vous êtes en train de donner raison ay Khalifa Sall ay ñoom ay ay ñoom Barthélemy Diaz mais lii lañ doon casse. mais il se dit pas on est en train de les donner raison c'est qu'ils ont raison sur toute la ligne. ah bon ils ont raison. sur toute la ligne. ah c'est fini. ils ont raison sur la direction du parti. ils ont c'est-à-dire ils ont raison ils ont raison parce qu'ils ont gagné. il continue à gagner. loolu mooy dégg aussi. xam nga. Ba Barta Khalifa waxoon nañ leen ko de. non xam nga sëñ Maodo. nit loo ko bañ et c'est ça ma différence avec les camarades. bokkuñu point de vue politique ban point de vue politique lay def man cest à que je ne suis pas dans le dans dans dans dans de l'arbinisme dans du dans du partenariat diw sama xarit la non non non. Mhm. analyse politique boo koy def il faut faire une analyse politique objective. Mhm. keroog bu ñu dakk ñoom Khalifa Sall ñoom Barthélémy Dias et autres mhm. man ak ku ñuy wax Karim Meng je le répète tout le temps ñoo ñeme yëkkati loxo boobu tàndoor mu ngi dund. Tanor avait même Tanor avait demandé pour des raisons d'humanité euh, euh, d'humanité Khalifa est en prison faut pas qu'on le suive parce qu'il n'est même pas dans ça. oui donc bokk ñu ci woon boobu mu ngi prison. oui mais par la suite. des gens de mauvaise volonté de de de, de voilà jël liste bi ñu bàyyi ba Tanor ñu lever séance bi jël y a même pas de liste. et c'est Karim Meng qui mais vous parlez d'exclusion d'exclusion montrez-nous la liste de ceux qui sont exclus. boobu bu ñuy lever séance bi. keroog BP. waxuñu ku ñuy dàq. il n'y a pas de liste wallaay c' est dans la conférence de presse que Abdoulaye Wilane a organisé ak maître Moussa Bokar Thiam si lañ commencé cité c'est noonu la kan moo leen ko jox kan moo leen wax loolu alors que c'est instance ki devait décider cité les noonu ñu validé loolu amul ça c'est un deuxième chose même bu amoon sax doo daxul dàkk bi valable. même bu amoon un BP taxul dakk bi balaa. waruñu woon dakk ñoo Bart. non mënul nekk dakk militant dafa yombul xam nga lan lan moo tax Barthélémy Dias bu ñu ko naroon dakk ci parti bi tey d'ailleurs bakk Bart moom bokk ci woon incident yi boo fekk ko fekk fekk woon fii. te mhm. dafa fekkee mu ngi États-Unis parce que moom moom dañ doon jokkoo fekkewu ko fii fekkul aussi Aminta Aminta tamit aussi fekkewu ko tey bu ñu naree dakk tey Barthélémy dañuy dem d'abord dans sa session à Mermoz Sacré-Cœur comité. union régionale muy bind ci comité bi ah direction de parti bi de saisir na ma man union régionale sur le cas de Barthélémy Dias dama bëgg ngeen statuer ci lan la def est-ce que mun nañ ko dag ngeen entendre ko comité boobu mooy def rapport envoyé ko section bi section bi defaat encore une enquête déglu Barthélémy envoyé coordination bi coordination bi envers loolu yëpp union régionale union régionale bu boobaa doo ko jëbbal bureau politique bureau politique convoqué comité central la commission de discipline mais loolu lépp dara lañ ci deful. donc loolu amul moom moo tax man dama jàpp ne dakk amul même bu amul sax su may nañu fàtte yooyu. parce que l'histoire yéen léegi waaw d' accord loolu c'est c'est dépassé d' accord mais yow li li doy waar mooy parti socialiste bii ngeen mere. Mhm. waaye léegi yow li waaye lu ngeen mere gars yi lan moo leen metti au sein du parti en réalité ba ngeen créé seen mbootaay gii simplement parce que le parti ne fonctionne pas instance yi doxatul euh, Aminata Mbengue Ndiaye nee nga am na vécu mais malheureusement euh, da ngay rebatas Serigne Mbaye Thiam nee nga dafa école parti bi dafa ñëw rek jàll moom ndooy yéen leen a dugg mun leen benn bokk yaakaar bi àndu leen ci leen ci. non xam nga. en réalité. waxuma sax waxu Serigne Baye mais ñoom yëpp laa wax dama ne. ñoom seen génération bi par exemple. waaw à part Mamadou Faye. oui. Aminata Mbengue Ndiaye. oui. amul kenn si ñoom. Hmm. ku def les instances de base du parti étant pionnier élève étudiant socialiste defuñu ko moo tax moo tax man la formation jaar-jaar dafa am solo ci parti. mais kan ku fi décider oui. xam nga ñun lu ñuy contester mooy lan. lu ñu reproché parti bi. premier point dañu ne l'usure du pouvoir après un demi-siècle de gestion et de règne sans partage est la toute première suivie d'erreurs de fautes d'abus et de manque de vision premier élément. deuxième élément dañ lu ñu may lu may wax nii dañu leen ko wax ah. certains acteurs sont encore toujours dans les arcanes des différents maillons de pouvoir représentent aux yeux des premiers nés du troisième millénaire, la soumission au dictat du colonialisme rejeté. Deuxième constat. Troisième constat, l'organisation et le fonctionnement centraliste du parti de 1948 ba léegi moo nekk fi ci parti bi de 1948 de nos jours ne répond plus aux réalités du moment loolu kay xam nga ko. jamono dafa changé dafa évoluer de 48 à maintenant ba léegi c'est les mêmes pratiques c'est les mêmes principes ñoo def ci parti socialiste La loi naturelle d'évolution exige de profondes réformes des statuts et des règlements intérieurs du Parti socialiste donc. waaye yow comme li ngeen di. kaas xam nga waaw yow yow mooy réforme yi ma la wax. dañoo beesalaat affaire yi. loolu yëpp mais gars yi dañoo lànk. ñu leen dafa yàgg. mais xamul dañu lànk mooy mooy ma la wax rek mooy benn bokk yaakaar bi rek. waaw benn bokk yaakaar bi rek. loolu rek la suukar bi rek moo tax ñu lànk. ah bon oui oui. mbura mburaake bi quoi. mburaake bi rek amul leneen. amul leneen mais xam nga sëñ Maodo gis nga politique man lu ma tànnoor jàngaloon. moom laa moom laa man je suis un tannouriste moom laa gëm bu may ànd ak tanoor séentuma ci moom dara amuloon dara aussi lu may jox amuloon dara lu ma mënoon may yàlla def nag maa ngi sant yàlla dama teel liggéey donc j'étais un peu libre indépendant. donc. oui man loolu laa gëm man liberté laa gëm dans un parti politique. mais yéen yow man su ma la déggee. liberté d'expression. oui indépendance financière indépendance matérielle loolu boo ko amee doo boo ko amee kenn. mais justement mais mais li ma yow yow bu ma la dégloo nii nga waxee ak ni Abdoulaye Wilane waxee comme yàlla ak yàlla. mooy lu mu wax Abdoulaye Wilane. Wilane bi ñu ko fi invité il dit bon y' a pas de problème on va essayer de se regrouper waxtaan ak ñëpp su ko defee parti socialiste delluwaat fa parce que sax amaana sax laaj naa ko sax est-ce que da nga di nekk candidat ci élection yi di ñëw mais xam nga il a en tout cas le jour ju bu ñëwee daañu am la def ni nangam en fait pour moom jàmm daal la ñu war a créer ba pare quoi pour moom dara xewul nga wax nii si ay affaires la. xam nga sëñ Maodo. oui la crise elle est profonde il a une crise réelle. dans ce parti. réelle et profonde dans ce parti. pourtant nag boo dégloo boo dégloo euh, Wilane day mel ne crise amul. mooy te nee naa ko am na ay ay ay dissident ci biir parti bi mais moom bon. mais xam nga sëñ Maodo Wilane c'est un ami mais man je je le comprends pas quelquefois. ah mais je pense je pense que cette fois-ci il est sérieux cette fois-ci. Hmm. mu ko mujjee déglu. ah léegi ubbi na bëtam. seen émission. waaw ak yow. waay yaakaar naa ne il a maintenant compris. oui mais il n'allait pas au, il pas au fond des choses. il a compris dégg naa ne sax il a pris des initiatives de contact. avec d'autres waaw wax na loolu de pour ngeen dajaloo waxtaan. avec les xalifa et les autres. oui le camarade aussi euh, Jean-Baptiste Diouf ak ñeneen ñun ñun on a yàgg nañ def loolu. nous on a déjà pu commencer cette démarche de retrouvailles de la famille socialiste c'était le souhait de Ousmane Tanor Dieng. malheureusement c'était son vœu. malheureusement mënu mu génne àdduna. malheureusement. malheureusement. mais xam nga ñàkk gëm sa bopp ñàkk gëm sa gëm yàlla la. Mhm. y a des gens à qui ça loolu intéressé wu leen. que Khalifa Sall revient ou comme Barthélemy Diaz ñu ngi xalaat ne xëy na bu Khalifa ñëwaatee il dina ma def il va ma faire l'ombre encore donc lu ma lu ma lu ma bëgg ci parti wala lu ma ci ma dootuma ko mën a am xam nga loolu ñàkk gëm yàlla la ce parti là n'appartient au per de personne bàyyi kenn moomu ko kenn moomu ko kenn mënul tere que bëgg ñëwaat ñëwaat ñibbisi heureusement y a des de bonne volonté parmi les sages te Jean Ami ta aussi mu ngi ci liggéey maa ko ci gërëm di ko sant mu ngi ko ci liggéey mu baax baax baax c'est une demande une forte demande des socialistes à la base <coughs> retrouvez-vous unissez vos et vos esprits pour un parcelle. mais avant de vous avant de vous retrouver mais il y a des changements yi nga évoqué léegi nag foog moom ci parti bi parce que tamit bu nga retrouver ba nekkaat intact ñi fi nekkoon démb rek a fi nekkaat y a pas de changement Benno Bokk Yaakaar bu ñu defee remaniement ministériel ñi fi nekkoon ñoo fi nekkaat yow mais xam nga en fait sëñ Maodo cest man euh, mooy lu ma wax cest le problème du Parti socialiste c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm. ça oui oui c'est clair. gis nga coalition bii. c'est le seul problème. c'est le seul problème on a fait combien de coalitions. on n'a jamais eu autant de problèmes dans le parti sëñ on na fait le CPC. Ouais. on a fait on a fait le Benno Siggil Sénégal mais fekkee ngeen ko le parti était attractif attractif et vivant. de 2000 à 2009 mais ce qui ce qui a fait les résultats que le parti a obtenus lors des élections locales en 2009 oui. même des régions ils ont gagné leur localité parce que le parti était attractif c'est le résultat c'est le fruit du travail de Tanor. Mbaa Mbaa Mbaa président Macky Sall li waxoon dafa leen réduire ba nga nekk seen expression bi mu. mais il a fait il, il, il nous a, a réduit il a réussi bon mooy lu ma lay wax nii c'est-à-dire que le résultat d'un travail fait par les socialistes on a presque fait le tour du Sénégal avec le secrétaire Ousmane Tanor Dieng résultat yi 2009 am nañ ko on a gagné tous les locales mais bu ñu duggee dans le benn bokk yaakaar gis nga bu ma remarqué affaire bi dama dem ci Tanor man ne ko lii gisuma fu mu jëm mu ne ma laisse tomber laisse tomber il faut voilà on verra le moment venu en 2014 ma ñëw ci moom ma ne ko l'histoire moo doon raison Macky Sall il a un petit parti qui s'appelle l'APR il n'a un parti d'abord qui est né il ne peut que s'adosser sur le parti socialiste pour nous détruire et faire grimper son parti c'est de bonne guerre. nous sommes en politique. on est en politique a dit waaw defe naa li réduire ba seen expression bi mujj. Mhm. simple expression bi gën a néew. mais parce que yéen tamit dafa mel ne yéen a yéen a yaacaaral di ko wolof di waxee yéen a bàyyeeku quoi en quelque sorte bàyyeeku parce que man mënuma comprendre parti bu toll ne parti socialiste ba léegi Sénégal ñu naan yéen parti langaamu ngeen rek quoi na leen di yóbbaale quoi na parti bi nii lay demee ak coalition Benno Bokk Yaakaar wala da ngeen di dem yéen waa IRAS. xam nga sëñ Maodo ñun xaaratuñu parti bi. ah bon ñun xaaratu leen. au sein de IRAS. Ah. xaaratuñu parti bi. toppatoo leen déglutuñu parti bi. bu ñu bëggee nag on peut on peut on peut maanaam on jàmm mën na am sama suñu diggante ak ñoom. oui s'ils vraiment loolu la ñu bëgg ñun. Mhm. dina waxtaan ak ñoom waxtaan nañu ak sages yi waxtaan nañu ak secrétaire général yi waxtaan nañu ak kilifa yu bëri. Mhm. bu fekkee nag il pense qu'il peut nous endormir ou bien nous divertir vraiment c'est peine perdue je pense que on a une petite expérience de la vie politique moo tax sama collègue yi dañu jàpp ne xaaratuñu parti bi lu ñu leen proposé bu ñu ci chargé chargé changé virgule wala bu ñu woowul concertation ñu waxtaan ak ñoom nous allons organiser notre propre séminaire du parti socialiste on va inviter tous les cadres et responsables à la base qui viendront à la séminaire-là. Ça, xam nga le deuxième point. de deux. nañ jël suñu responsabilité ba pare. jël suñu sa responsabilité mooy lan mooy xam sa responsabilité d'abord d'abord le parti man loolu lay wax nañu fàtte le Benno Bokk Yaakaar ça n'a pas amatul impact c'est un une coalition qui n'a qui n'a plus d'avenir ce n'est plus attractif. on a qu'à revenir dans le parti les camarades n'ont qu'à se ressaisir ànd ak gëm yàlla et loolu lu am solo la. yow pour yow dañoo bañ a génn benn bokk yaakaar. non am na ñu y yoo xamante ne waxuñu dara génn ci benn bokk yaakaar. ah bon non non non non xam nañ la leer na leen ne ñoom leur carrière politique ne peut pas dépendre benn bokk yaakaar regarde Aliou Ndoye par exemple qui gagnait. Mhm. sans le benn bokk yaakaar au plateau. cette élection là il a été laminé ça c'est quoi. leeroon na ma ne bu Alioune Ndoye demoon seul seul mhm. seul à une liste autre que benn bokk yaakaar il allait mais ba mu duggee ci benn bokk yaakaar lañ ko laminé quoi yow. Sénégalais moo bëggul injustice. d'accord sëñ xam nga ñun. Mhm. et les ils ont les Sénégalais ont montré quand même nous ont montré qu'ils aiment le personnalisme boo xoolee dakaar on a encore gagné toute la région de Dakar y a que pratiquement maire. toute la région de Dakar les députés aujourd'hui Khalifa surtout ak 14 députés à l'Assemblée nationale à lui seul à lui seul ñu dans le parti socialiste on a on a que cinq députés l'institution le parti socialiste cinq députés. taxaw taxawu Dakar leen ëppale quoi. foofu sax gisuñu leen sax te ñu fa nekk suñu moroom lañu Khalifa a investi les jeunes. même en 2009 les maires là les Bamba Fall les les les Madiop Diop mais Khalifa ma lay investi parce que Khalifa il dafa gëm il moom pour moom l'avenir c'est les jeunes. mais c'est normal. aujourd'hui il a encore en députant investi les jeunes il a il a montré encore des leçons des leçons aux porcelistes. oui pendant qu'il y a d'autres responsables qui appelaient d'autres camarades pour les demander de ne pas être candidat. Mhm. uniquement pour sauver leurs intérêts. mais c'est pas bon ñun moo ñu amal solo boo gisee ñu xeex. pour que parti bi déposer caution lors des élections locales yi passées mais c'est parce que quand même dem nañu ba sentir na parti bi existé wul existé wul donc les camarades ne sentaient plus le parti bu ñu demee élection législative yi locale bi gis nga nu mu demee ils ne voyaient pas le parti dans le Benno Bokk Yaakaar ils ne sentaient pas le parti dans le Benno Bokk Yaakaar xam lu ñu def ñu xool qu'est-ce qu'il faut soit s'abstenir ou aller voter pour le quatre pour cent des militants socialistes à la base je te dis bien à la base ont voté pour le Yewwi Askan Wi. les socialistes. mun euh, na la wax parce que ils ne se retrouvaient pas sur le Benno Bokk Yaakaar. parce que gisuñu seen bopp ci parti bi. gisuñu seen bopp ci parti bi. ils ne se référaient à personne. je te prends par exemple l'exemple de la région de Kolda aucun socialiste n'est investi même suppléant on prend le maire le seul maire socialiste qui nous restait dans la région de Kolda le seul maire qui nous restait à l'occurrence euh, Boubacar Mané mais c'est l'APR qui l'a combattu bu ñu nanguwaat mairie bi et c'est le seul maire qui nous restait c'est la seule mairie et c'est fini et c'est fini Sédhiou idem c'est extraordinaire sëñ Maodo mais à quoi mais, mais, mais quelle est la solution présentement lan lan ngeen en fait d'après li ngeen proposé léegi pour ngeen waxtaan ak Yeesal ak mais élection yi bu yàlla dogalee feek 2024 allah ñu jëm ci présidentielles yi bu ngeen deful ndànk benn bokk yaakaar bii dana tax parti socialiste tasan ah. wala bokk en tas pas tas au sens premier du terme mais da ngeen da ngeen tasaaroo tasaaroo goo xam ne gii dina doy waar parce que du ngeen nangu gars yi topp ci demaat benn bokk yaakaar. mais loolu jeex na dama ne. jeex na ah bon c'est fini du ngeen. fini loolu moom. ah. mun na mun na mun naa mun na am yaakaar ci ñu bari ci loolu. ne du ngeen nangoo dem. ñu ñu sonal c'est ceux qui sont aux responsabilités dans le Benno Bokk Yaakaar. mooy wax naa la ko léegi mooy les ministres. mais malheureusement ils sont vraiment minoritaires très minoritaires par rapport à à à à à, à la base par rapport aux militants. mënatuñu mënuñu mënuñu décider dara. waaw mais léegi léegi. mais oui waaw fii lu ñu jëm mooy lan. Mhm. moo tax ma ne la. Mhm. cette fois-ci je crois à Abdoulaye Wilane cette fois-ci. vous dites cette fois-ci. je sais que <laughs> il est sincère. Mhm. ci li mu ci li mu wax mhm. il faut que ñu dem vers le grand retrouvaille de la famille socialiste. ñu discuter préparer un candidat socialiste en 2024. avant cela si c'est possible nous devons aller d'abord vers un, un congrès extraordinaire ça c'est les propositions de IRAS troisième point mooy lan mettre fin à l'intérim la présidente Aminata Mbengue Ndiaye luñ ko ñaan elle n'a qu'à pour mettre fin à cet intérim parce que amul sens. nekk gi mu fi nekk nii. non munu koo elle ne peut bu ko bëggee munu ko yarama man mënatu ko may. mais yéen vous, vous voulez un changement radical. mu def mettre fin à l'intérim qu'elle accepte d'organiser un congrès extraordinaire. Mm -hmm. on sent les textes du parti. Mhm. ñu rajeunir le parti socialiste si nous voulons un parti attractif. s'il refuse. mais écoute mais elle ne peut pas refuser c'est les textes qui sont là le congrès extraordinaire est prévu de par les textes d'ailleurs on comme séminaire bu ñu bëgg a def nii on va proposer tout ça là et ce séminaire là sera sanctionné par des résolutions fortes et sera obligé de se plier c'est pas une question ça parti bi quand même de ce côté du doxewul noonu comme l'APR c'est le président Macky Sall c'est le bureau politique c'est le comité central in yooyu ñuy décider ce n'est pas Aminta ce n'est pas Aminta malheureusement. pour yow le parti ne vit pas. le parti ne vit pas il n'existe même pas. ah bon ah oui. mais Baldé Boubacar Baldé li nga wax ni grand na parce que bon en fait mi ngi fi mi ngi fi <laughs> le parti n'existe même pas mais jàpp naa ne mi ngi fi mais dafa bootu yéen bootu gi wax nga léegi léegi ñaar yu leen metti benn bokk yaakaar bi c'est le seul problème ñaar itamit ñi ñu reconduiraat boole leen ci gouvernement président Macky Sall muy bokk yaakaar bii. ci seen gouverne euh, gouvernement de combat bi muy Serigne Mbaye Thiam Ndoye Amin Aminta et cetera gis ngeen ne bon blocage la pour yéen parce que li war dox doxul réunion amul kenn informé wu leen il paraît que sax yéen da ngeen di wax ne surtout le comportement de Serigne Mbaye Thiam moom moom moom yéen moom waa INAS moom da ko moom yéen moom rafetlu wu leen ko xaw ma nag daf dul ñëw ci réunion yi xaw ma daf leen a faalewul mm-hmm. lu ngeen xam na leen ah mais faalewu leen mm-hmm. d'après d'après les dires et ça pose un, un blocage. xam nga euh, d'abord man dama koy remercier ci benn depuis ci benn ci benn côté Serigne Baye. oui ban oui. parce que récemment il a fait la promotion de deux cadres membre fondateurs de IRAS. Mm -hmm. ça c'est important. c'est bien. woo ma man këram wax ma ko. nu ma ko waxee aussi il l'a confirmé. et je au passage kooku ma ko ci gërëm bu baax bu fekkee ne amoon na lu may conseil Serigne Mbaye am avant la constitution du gouvernement du président Macky Sall c'était de lu demander de ne pas rentrer dans le gouvernement par souci d'équilibre ah oui de pas rentrer dans le gouvernement et par respect à la mémoire de Tanor xam nga lu tax. Mhm. moi Serigne. et par respect à la mémoire de Tanor. Serigne nous avons des vraiment particuliers c'est grand je l'estime beaucoup. ouais xam nga nit am na fooy toll. Mhm. bul xaar bu ñu la gënal wala bul xaar bu jeex. bu la seppi sa loxo ci ndab li. non warul toll foofu. 2012. Mhm. bu ko Tanor fale. si la contestation yi commencé. depuis lors 2012. Mhm. mais man bokk naa ñu jamono boobu nekkoon à ses côtés ma jàpp ne il a les techniques pour aller dans le gouvernement de Macky Sall. Mhm. loolu laa loolu laa jàpp. Mhm. te loolu moo am il a technique bu mu demee doxalee ba quatre cinq ans la xam ne les compétence techniques ne suffisent pas ne suffisent pas. Mhm. pour être un bon leader il faut la base et c'est fondamental alors donc bu ma ñëwee ba xam loolu discuter ñi sax dama jàppoon ne cest pour sa carrière politique pour son navenir il devait prendre un recul stratégique politiquement intelligent mhm. mu jël recul mu ne mais tiens depuis 2012 pourquoi tout ce nombre de personnes la m'attaquent et me Ouais, mais il est, il est Mais il devait prendre, moi, pour moi, c'est ma, ma position, hein. Oui. il devait pour les 15 mois qui restent à Macky Sall mu jël recul Serigne Mbaye il a les compétences il est intelligent il est il a bu dem peut-être faire un peu une carrière internationale dalal xel yi ñibbisiwaat boobaa nag lu mu laaj dina am légitimité laaj ko parce que nangul lan nañu lu ñu bëggoon y a pas de problème à ça maintenant mm si le président Macky Sall insiste mm -hmm. et persiste c'est parce que eux, ils le veulent man lu ba moo bëggul boo nga fal ma doo ma fal pas possible mais nee naa avenir parti socialiste vraiment yéen moom gën a gisatul quoi moo gën a am importance les postes les postes euh, vraiment ces postes ministériels la du poste mais tout ce qui est poste nominatif moo rey parti socialiste chacun rêve et pense que Macky Sall doit l'appeler pour le mettre à des postes de responsabilité loolu mooy dëgg maintenant lu ñu attaqué di critiquer Serigne Mbaye mais ñoom lañu commencé par seen seen bopp aussi qui se retire tout ce qui est leur leur PCA le le bon waxuma peut-être les ceux qui ont les les les fonctions électives donc xam nga sëñ Maodo. Euh, mais am ngeen problème de waxu leen ko mais seen parti bii. on a de grands problèmes. waaw li ma la gisee nii nga wax nii. problème bi y a eu énormément de problème bi. problème yi. donc problème de fonctionnement d'abord dans le parti. de fonctionnement oui. problème bi du Serigne Mbaye Thiam rek. oui c'est un tout d'abord c'est juste un exemple quoi c'est juste un exemple. nous sommes tous responsables de ce qui est au parti parce que ñun IRAS tey. lu ñu def nii. bu ñu ko teeloon def sëñ Maodo. xëy na on aurait trouvé une solution. mais dañ ko yéex def mais quand même il n'est jamais trop tard de bien faire. mu ñu ko ñëkkoon def yee ko. mu ñu ko mais IRAS ñoo ko composé ci biir est-ce que c'est un groupe ou bien c'est un tout wala ñu rek tapis dans l'ombre wala wala wala wala. am na ñu épouser seen idées yi mais bëgguñu ko feeñal. oui y en a y en a beaucoup y en a xam nga IRAS c'est un groupe de cadres. Mhm. des cadres académiques. oui et des cadres politiques. waaw mais ñoom ñoom alphabet la c'est des cadres aussi. voilà loolu la la wax mais xëy na ils tous sympathisants de IRAS ñoom yëpp nag laa la wax donc foofu laa mën a yem ak yow ñoom yëpp mais am na nga xamante ne bëgguñu ci feeñ. parce qu'ils sont dans des instances. Mm-hmm. ils dirigent des instances mu ngi ci feeñ. aujourd'hui d'ailleurs la la totalité des membres de IRAS c'est les membres d'union c'est des membres d'union régionale de des membres du bureau politique du secrétariat exécutif je ne te cite je ne te peux que citer que deux tu prends le cas de Bakary Bassène c'est l'union régionale de Sédhiou oui tu prends le cas de Idrissa Ndiaye il a la coordination de Yoff mm -hmm. qui est architecte aussi exemple boobu tu prends par exemple à tu nous avons le professeur Issa Samb mhm. qui est un grand chercheur voyez tu pas tu vas à Fatick tu as Madoumba Diouf tu vas à Kolda je suis là-bas et tant d'autres donc yooyu Soumaye tu vas par exemple dans le Bakel tu as le doyen Birame Camara on a, on a aujourd'hui, et c'est là où Est-ce que, son oui. engagement, le doyen aujourd'hui, on a installé des cellules partout, à Paris. Aux États-Unis, on a des représentants. waaw mais est-ce que justement mais fii est-ce que yéen gese ngeen jege ak Aminata Mbengue Ndiaye wax ko. yeux dans les yeux ne ko wax dëgg yàlla sa nekkin bi nga nekk fii nii tax na vraiment affaire yi san ne va pas ngeen ko ko waxee noonu mais politiquement moom du def xam na xam na politique mën ngeen est-ce que dem na ba xam ne. moom yow yaa ne moom lim nekk mënu ko bëgg na ko waaye mënu ko wala boog bu ko mënee tamit temps mayu ko ko wala et cetera wala wala euh, léegi nag loolu blocage lay doon man loolu laa la bëgg a leeral fii. xam nga nee naa la cest à même bu ko bëggoon. Mhm. mënatu ko. même bu ko bëggoon mënatu ko waaw ah, loolu tamit ça peut se comprendre. forcé parce que dina dina dina gën a fragiliser son de santé parce que lu may conseil sama yaay loolu laa koy conseil nee naa la Aminata c'est une militante du parti socialiste. tout le monde le elle s'est battue. seule loolu yëpp xam nañ ko. elle a gagné la mairie quand ils au pouvoir. elle a regagné la mairie de Louga quand elle était dans l'opposition. et ça c'est important pour une femme. contrairement à. ça non Aminata la de attention. non Aminata c'est une lionne. jàmbaar la de moom moom man la. fekk yóbbu Louga de. elle a gagné Louga deux fois quand elle était dans l'opposition. oui contrairement à ceux qui sont dans les des responsabilités donc Aminata Kamel elle a un mérite. oui mais mais mais mais oui. fu ñu toll nii. mënutul yor parti bi. mënutu ko elle ne peut pas c'est pas possible elle le veut bëgg na lool mais mënutu ko maintenant c'est aller vers des réformes aller vers un congrès extraordinaire rapidement muy sauver parti bi parce que xam nga ce qu'il faut éviter dans la vie. est-ce que gars bi ñuy dugg ci gouvernement bi concerté wu nañu. ah bon c'est une question. Je, que bon je ne je ne saurais le dire parce que. euh, en tout cas nous nous avons demandé on avait demandé une concertation avant ñuy dem dans le gouvernement. et moi ma position c'était que ñu def rotation. franchement. oui ah, naturellement rotation c'était ça ma position un parti de masse comme le Parti ma position était que ceux qui étaient déjà dans le gouvernement sortant ñu bàyyi leur leur place muy kii di Serigne Mbaye kii di Alioune Ndoye ñu bay leur place à d'autres camarades. plus jeune que plus jeunes que c'était ça monsieur Emma qui il a il a tous les jeunes euh, ma Ndiaye les Biram euh, Biram Faye et tout le monde donc man loolu laa gisoon et si j'avais l'occasion à l'époque de parler à Aminata Mbengue wax mais am na kilifa bu mag nga wax naa loolu ma ne sama souhait lu ma gënal man kii la une rotation loolu laa gëm te loolu laa mës parce que sinon rotation bu amul parti bi ci ay problème rek lay nekk. ci ay mais mais pourquoi bon en fait mënu ma ko expliquer. mënu ma expli mënu ma loolu. personne kenn bi ñu leen di tànn kenn newul dóor ci tabal ji ne man nangam kenn bëggul. kenn proposé wul. personne ah. à part Ali Mané à part c'est au moment où euh, y avait comment le premier ministre était en consultation Ali Mané Ablaye Gallo Diawo ñaari ñooñu ñoo réagir à TFM. pour faire des contre-propositions à part ñooñu y pas une instance qui s'est réunie pour parler de la désignation de nos camarades dans le gouvernement mais nee na la man sama position ma position était que de def rotation si le parti estimait qu'on devait avoir des représentants dans le gouvernement c'était de changer tous les deux changer Alioune Ndoye changer Serigne Mbaye on propose des jeunes cadres qui sont capables mais loolu amul bu loolu mënul am mais on se retire tous de Benno Bokk Yaakaar on va affronter les Sénégalais d' accord su loolu moom tam ngeen génn ci coalition bi. dem affronter loolu yàggatul incha allah feeg 2024. Euh, loolu Babacar Balla sa waxtaan bi neex na lool mais ñu ngi ci fin bi lan ngay tëjee. lu may tëjee di gërëm. di gërëm di gërëm euh, euh, ñëpp di gërëm militant. Mm-hmm. à Kolda fu ma sosoo. oui nekk fa responsable. Mm-hmm. de coordination. nekk fa responsable. Mm-hmm. chargé à la vie politique de parti socialiste. donc euh, je pense que ñooñu il faut ma gërëm leen parce que sama formation yëpp je le dois à Kolda et au Koldois une partie une autre partie à Ziguinchor ba nu ma ñëwee Ndakaaru donc euh, di gërëm vraiment et tout le personnel politique di Parti socialiste di leen demander di leen lancer un appel hmm. encore le parti encore le parti toujours le parti nañ jiital parti bi ñu xam na ne lu fi waay am rek parti moo la ko jox lu fi waay am parti moo la ko jox du sa ñaanu ndey du sa ñaanu baay mais na nga xam ne ne parti moo la ko jox et c'est la somme des efforts de tous les militants qui sont là depuis moo tax nga am lu nga am. ah donc boo naree fàtte. yaakaar ne si da nga da ngaa da nekk dara parce que eh, xëy na <coughs> yaa nit ñi tu fais le petit malin tu fais l'arrogance su di temps perdu nit ñi duñ la faale. bu boobaa nag ce que me disait Tanor mu ne alal politique ku politique jox alal na nga ko war a delloo ci askan bi boo ko delloo ci askan bi nag da nga koy fejoo ça c'est Tanor qui m'a dit ça une fois. loolu am solo la woon maa ngi koy jàpp. parce que un jour dama ñëw ku ñëw rek il prend le sac mu joxe mu mën a ko mais secrétaire général. vous est-ce que compte là ce que vous met vous mettez la main dans dans le sac et vous donnez là est mu ne oui quelquefois c'est dans la politique c'est toi c'est eux c'est tout le monde qui a fait que. lu ñëpp bokk la quoi. il était générosité extraordinaire. si Maodo waay d'accord Tanor da koy da koy da nga koy ko te xamoo ko waaye bés boo ko jegee rek nga xam ne kii c'est un homme d'état. d'accord et encore exemple ci moom Tanor a géré le parti avec désintéressement sëñ Maodo de 2000 à 2012 Tanor n'a jamais été intéressé par un poste de ministre a fait des propositions à avec quatre ministres cinq ministres Tanor a refusé. D'accord. parce que c'est le parti qui l'intéressait mais ñii ñu ma gis nii. Hmm. l'avenir du parti ne les intéresse pas. lu leen intéressé mooy c'est leur échelle sociale. seen njëriñu bopp quoi moo leen bàyyi ci kaw d'accord jërëjëf Boubacar bu baax baax kon leen yónnee ministre yi nekk ci parti socialiste seen njëriñ doo nga leen fi bàyyi bàyyi leen benn bokk yaakaar beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci